تركت ما كان لي بالبيع مبتغيا ما علم لي يا بحاجتي لنا ndax temps bi daf ñoo xoj eh, maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di jiital nuyoo bi sëñ Mamor bi nga xamante ne moo tax tey ñëpp daje fii tey ngir ziar man nag sama kàddu daanaka dama koy dekke kàddu sant rek ak ngërëm di sant daayira mi nga xamante ne mooy waa Milan ñoo nga xam ne ñoom ñoo aye tey yombul aussi nga organiser ñëpp daje sëñ bi wax na ko léegi mbooloo mooy doole parce que tey buñ boole woon ku nekk bëgg a def lekk ko def lecce def beneen dëkk def day jafe mais niñ ko xamee bu fekkee ne kenn ku organiser ñëpp daje defe naa loolu aussi mooy yombalal mbir mi te mbooloo mooy doole mooy yombalal seen bi aussi déplacement ndax aussi métti na trop nga war a circuler pour toute l'Italie mais nag yoon yemul ci benn lu ñu namoon la parce que depuis deux ans amul donc bu ko wàññee ba mu am ay pàcc pàcc yoo xam ne nit ñi mën nañ daje dañ ciy sant may ñëw nag tuuti ci li nga xamante ne mooy le consulat général du Sénégal bi nga xam ne moom laa jiite ci loolu laa mën a wax il faut ñu xam ne aussi consulat bi ñun ñoo ko moom consulat général bu Sénégal suñu yëf la ñu jàpp ne état bu Sénégal tey bu ko jëndee pour yombalal ñi seeni kayit ñu ubbil suñuy bunt ñëpp nag te yaakaar naa ne ba ma fi nekkee ba léegi awma ci audience képp koo xam ne soxla na ci consulat bi boo ñëwee lu ñu mën a faj sa aaju dañ ko faj ñuy jëm nag ci li nga xamante ne mooy ay élection moo ci attiré tuuti attention parce que defe naa ne Sénégal bu amee jàmm ñun ñëpp ñu am jàmm te tey maa ngi ñaan képp koo xamante ne yaa ngi fii yàlla may la nga mën ñaan ñaanal ndax Sénégal am jàmm jàmm tey moo waral tey ñu mun a daje fii parce que dëkk bi ñu nekk tey bu amoon safaan ba duñ fi nekk may ñaan nag ñu xam ne ci ay élection la ñu jëm politiciens yi moomuñu Sénégal ñun ñoo moomal suñu bopp suñu Sénégal quel que soit problème ak quel que li ciy am nañu xam ne Sénégal ñun ñoo ko bokk ñi fi nekk dañuy dem ba man mi fi nekk dama ram nit laa remplacer ëllëg dina ñëw keneen remplacer ma li ci am solo mooy lañ fiy bàyyi nañu jàpp ne Sénégal ñun ñoo ko mën a defaral suñu bopp may ñaan nag sëñ bi ak mbooloo mi nekk fii nga ñaan ci sa sa barke maam Sénégal sax ci jàmm démb wax naa ko ca Brescia il faut ñu bàyyi par parloo te xam ne Sénégal moo ñu yëkkati ñun ñi ñëw fii ñëpp jàpp naa ne ñun ñoo tollu rang social parce que ku fi say waajur amoon ay milliards doo fi ñëw comme ñun ñëpp nag ñoo bokk rang social nañu jàpp bokk ndey bokk baay defar suñu réew muy Sénégal nga xam ne ñun ñoo ko bokk consulat bi daal comme li ma la mbooloo du jiite mbooloo dañ ma fa teg rek ma jiite ko mais damay saytu taataan xam-xam képp ku nekk ci yéen loo xam ne moom moo koy doxal maa ko nekk bés ni ki tey dinaa def aussi bu élection yi passé dinaa def tournée dem dajeeg association dajeeg daayira yi am na aussi commission bu fiy ñëw suba pour nga xamante ne day def recensement sénégalais parce que aussi il faut ñu xam sénégalais yi nekk ci gox bi Italie ñaata lañu fan la ñu yeewoo ak ci lan la ñu nekk may ñaan fi aussi ci mbooloo mi ñu jàppale ñu ci ñi nekk ci kaso yi yónnee naa ñaari yoon commission ci kaso yi suñ demee pour seet ña fa nekk dañu nangu ñu gis leen ñëwuñu pour rapatrier kenn dañu ñëw pour xool ci yan condition la ñu nekk ñu seet nan la ñuy def pour jàppale leen pour mën a seen nekkaay mën a yomb ci réew mi aussi ngeen may ñu ci daayira ak association yi ngeen waxtaan ci beneen wax yi may ñëwaat aussi wax nañ ko léegi ci formation sëñ bi li muy def ni état moo ko waroon def mu jàppale ci état créer ay université di ci former ay nit tey bac yi ñi fay génn tey ci université ci école Sénégal yi dañ leen di affecté ci université boo xam ne moo ko def ak ay moyens bu fekkee nag sëñ bi tey dem na ba jàpp na formation dafa bokk ci nit njàng dafa bokk ci doomu aadama ñun ñu nekk ci réew mi am fi xam-xam di jàng nekk ci société li ñu am fii nañu fexe yóbbu ko suñu réew parce que mënumaa nangu nit nekk ci benn société pendant vingt ans am fa xam-xam ba ba ngay nax saay say mbokk duñ ko jëriñoo sa réew du ko jëriñoo man nag créé naa ci consulat bi ce nappel appelle un service économique pour jàppale kenn koo xamante ne am nga projet de retour na nga ñëw jege si ñu seet nañ lañ leen di jàppale pour ngeen dellu xale yi ngeen xamante ne aussi dañoo juddu ci réew mi nañ leen yar ci diine yar leen aussi nampatal leen ci Sénégal la ñu dëkk parce que jàpp naa ne fii ku fi am nationalité italienne de da nga mel ni nekkatoo sénégalais te ala kuli aalin sénégalais la ñuy nekk waajuram sëñ sëñ Maamoor waajuram daf daan wax ne nañu ñaan yàlla di ñibbi sol daal ndax ku ñibbi soloo daal mooy dañ laa yenu yal nañu yàlla boole ci ñuy ñibbi sol daal donc loolu mooy wane ne xale yi aussi nekk ci réew mi ak jigéen ñi dañuy am problème souvent di ñëw ci ñun may naan waajur ñu góor ñi xale yi amuñ benn problème ci seen problème de couple ku ci amati sa doom nga joteek soxnaam bu demee autorisation parentale dimbale leen ñu ngeen signal ko xale yi ndax xale yi état bu Sénégal nee na droit bi góor ji moo ko yore te couple yu bëri xale yi dañuy ñëw ñu indi leen ba ci ñun soxla benn passeport du ko mun a am ndax papa ji bañ na ne duma ko signal ko autorisation parentale nañu jàpp ne couple yi xale yi seen yoon nekku ci ku ci amati problème ak sa soxna xale yi war a ñëw ci ñun pour am passeport dimbale leen ñu rek kuñ ci woo ngeen dimbale si ñu am na benn dossier bu ne sama bureau ñetti fan a ngi nii maa ngi woo papa xale bi mu bañ ne du ma jël te xale bi mënul am passeport te dafa war a dem vacances donc aussi il faut ngeen jàppale ñu ci loolu aussi xale yi ñuy nangu bu ngeen ñu jàppale rek nangu dootul am ku ci amati problème ak sa njaboot ñëwal ci ñun ñu seet nan la ñuy def ba mun a waxtaan ak ñoom balaa mu yegg tribunal parce que boo xesee ba yegg tribinal rek day gën a jafe ci ñun en tout cas maa ngi gërëm ñëpp di ñaan nag élection yi ñu jëm rek comme ni ma ko waxee nañu ànd ak dal bu jour ba jotee nañu dem vote ji ku nekk delluwaat sa kër jàmm am fii jàmm sax Sénégal jàmm sax ci àdduna bi yëpp ndax mbas mi fi amoon wane na ne tey ñaari at a ngi ñu bëggoon gis sëñ bi mënuñu ko gis kon xam nañ ne fu jàmm am rek lépp xej na fi maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp تركت ما كان لي ببيع مبتخي